waaw loolu moom li ñuy tàmbale moo di ginnaaw buy sant yàlla di fi sallallahu alayhi wa euh, li ñuy tàmbale moo di di sant Cheikh Mouhamadou Mountakha ci jëf ju rëy yi nga xam ne jëf na ko bëri xam ne moo jabatu ñëpp mu jël 200 euh, millions jox ko président de la République ko kat maa la ko dimbalee ci xeex jàngoro ji loolu nag di wane ne ñun ñëpp dañoo war a nekk benn marché mobilisé wu. xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a xeex kenn ku nekk ci niveau bi nga toll moo tax sëñ bi ginnaaw moom def ay ñaanam ba noppi mu jël noonu nag joxe ko ngir wane aw yoon kon ñu ko sant wu këram euh, la ca des nag moo di ne prise en charge bi nga xamante ne bii moom la état bi war a def jëmm jàngoro ji ñu ngi ci bu baax ñu ngi ci xañ na kaay yokk na ndax am na sunu mbokk mu dugg mbokk wàllu ay ay jege ñaaleem waaye dañu sant yàlla ndax ba tey aussi kenn loru wuti di sant yàlla itam nag chaîne de transmission bi yam foofu mu bañ a dal euh, ñeneen nit euh, fi may waxee yow ni tem rek ci mesure yi nga xam ne ñu ngi koy jël tey ji euh, ca tuuba ña ngay ci suba rek ñaw na dem ci benn taan di ko xool defar ko ngir dafa yóbbu ñi nga xamante ne bii ñoom la ñu war a mettre en en quarantaine ak nga xam ne ñoom la ñuy faj kon bu bu ñaan yi jiitoo prise charge médicale am solo suñu autorités yi nga xam ne ñoo jiite suñu réew mi aussi def ko yitti ju mat sëkk mën nañoo rafet njort ci ne Sénégal yàlla mën na ko sutural te ñu fàttali ne suñu ñi nga xam ne ñooy suñu fajkat yi am nañu expérience ndax Ebola jaaroon na fi. ñu fañ ko ba mu wér ñu delloo ko ci ñu delloo ko ci am réew euh, maa ngi fàttaliku am na màggal goo xam ne choléra moo fi amoon màggal Touba boobu jamono sëñ Saliou wala woon waaye itam ñu taxawoon nga taxaay bu am solo boo xamante ne bii itam euh, yëf ya dem wuutoon na nga xam ne noonu lañ ko doon euh, noonu lañ ko doon tiite di wax itam rek ne nit ñi nañu bàyyi xel nag docteur yi ndax ca booba dafa am lu sëriñ Saliou waxoon lu am solo dane woon kep kuy na ngeen def li len docteur di wax ndax kep ku ci tawat ya yobbu ya yobbu docteur yi ya yobbu sa bop docteur kenn du wax kon li len di wax na ngeen ko na ngeen ko def te lol nak moy dimbale itam ñi nga xamanteni ñoy suñu sunu sunu kilifa yi kon kenn ku nek dal na aar bopam aaru njabotam jël mbolé mesures yu mu war jël pour que jangoro ji mom bañ ko walé fexé aussi ba kenn bañ ko walé buñ ko défé rek sunu borom mëna ñu dimbali ñu farlu aussi ci gi ci cet gi di di di di raxasu lu bare bare bare bare bari bëri di jël ay euh, gel alcool yoo xam ne aussi day am alcool di ko def ci sunu ay loxo euh, loolu mu ñu ko defee rek sunu borom mën nañoo mën nañoo dimbali di ñaan yàlla daal mu yem